asalaamaaleykum euh, kilifa gi ñu ngi lay ziar di la nuyu ñëw fekk si la fii ci daara ji euh, ñu bàyyi la rek euh, nga daal di fàttali ñu tur bi ak ci taxawaay bi nga xam ne moom nga taxawee fii représenté fi famille bi nga xam ni moom mooy famille Thiénaba Sekkeen ñu bàyyi la rek nga ñëw ci ak mbokku téléspectateurs yi. waaw sang bi jërëjëf ñu ngi lay nuyu di la ziare di la gërëm di la di la jaajëfal di bég di kontaan seen dikk gi waaw fii de xam naa war naa fee defagun juróom fukki at yu manki ñaari at bi ma fi ñëwit maa ngi fi ñëw ci ndigal sama waajur moo sàkku woon mu ñëw nekkal ko fii téyel ko tool yi téyel ko daara ji téyel ko lislaam bi yàlla dimbale nit ma nekkal ko fi fukki at ak juróom yi mu nekk ci xalifa gi xalifa ak canama waaw ba fi jógee ak tayit macha allahu mm, la taxoon mu bàyyi fi loola daa yokk waaye wàññikuwul ndax bis ba mu mujjee fii moom fekk mu jógee Kaolack ci ay ittee jamono ba mu ñëwee daf ni nu buñ boyetee gerte dañ koy miiree kër gi keroo la fi mujj waaw yàlla def nawet booba bi nawet ba daal génn mu wàcc liggéey booba ay dóor dóor moo fi ne ak ay néegi ñax kon ku fi ñëw te da nga xam ni fi bàyyi woon noo ngi nab nabi noo ngi jóg ak daanu yàlla dimbale nu daara ji masalan dafa gën a yokk njàngum alxuraan maa ngi dox njàngum xam-xam mi mi ngi dox doomu aadama yi ñi ngi mokk alxuraan ñi ngi jàng xam loolu lan fi nekk boole kook tool yi ak di di gindi doomu aadama yi seen wàllu diine waaw ak seen wàllu pas-pas ak seen wàllu makaarimul axlaax ah loolu it yàlla sagal nañu ci suturaal nañu ci ba tey boo boo wàccee fii boo nee ana kër Abdoul Aziz bu cabe rek lañ la ciy moom day sedd sa xol lool waaw yaakaar naa incha allah bala ngeen fee jóge bu ngeen ci amul firnde it amaana bu ngeen fee dangeen ci am firnde waaw loolu lan fi nekk lislaam bi noonu ci bi tool yi jàkk ji ak daara ji daara ji xam naa war naa jigee tey donk jigee téeméeri donc ak ñoom wóolu yàlla yaakaar yàlla doyloo yàlla di bég ci njànguma alxuraan mi sax dàkk naag guddeeg bëccëg doomu aadama yi fi yar yooyu ñu yar leen yar bu baax boo xam ne ëllëg yi si biir fu ñu jógee buñ demee nekk ay royteef ndax ñi fi jot a jaar tey ba ñibbi ba samp kër foo fuñ ne rek royteef lañ fay doon yoon woowu rek la ñu jaar bëgg mu gën a yaatu bëgg mu gën a dëgër bëgg mu gën a rafet bëgg mu gën a kudóoru ah fas yéene sax na nga ci yàlla wóolu ci yàlla baa gën a naa métti nag ndax nee naa ci dëkk am na fi ñaar fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne bu ma naanee ndox mu neex dama ko wuti feneen ndax benn teen fi newoon te dafa saf xorom waaye yàlla dimbali nañu ah, ba fi dollu yaakaar ji gën naa doole ko ndax ab am na teen bu fi mag ñi bàyyi woon yàlla mujj na mu mel nanu gënal ci neex ci neexaay ak baaxaay ak am ndox waaye nag ah, xéwal gën naa doole ko waaw xéewal yi gën a doole ko wala mu jaay nag nee na lëg bu lekkee cooy bu lekkee lëg bu lekkee alam na ko gën a ma cooy su fi bii fi jógee wàjjur dem ca na bawol ñu dem Babacar Wade nii nit ku baax mbootaay yi nga xam ne ñooy financé jumaa yi dafa am jumaa bu ñu doon ubbi mu leen sëñ bi mi ngi yeewee ab teen fexe ko teen ah ñoom ña fa ne ñu digg wax ja ñu daal di nañ ko bëndal mini forage daanaka bënn nañ ko ba bënn na fi mu toll tembe dañooy dem Dakar wuti ay tiwa yuñ ci mën den pour daal di taxawal Séddo kon xam nga yaakaar ji gën naa doole ko waaw loolu rek lañ bëgg mu gën a yaatu rek gën a dëgër man jamono yee daal ñu dundal dëkk bi dundal jàkka ji dundal jàkka dundal jàkka ji dundal daara ji tool yi loolu rek mooy suñu ak nu mu gën a mën a yaatoo nag ak feneen foo xam ne ci dëkk la ci dëkki mbokki jullit ak mbokki taalibe it nag mu gën koo yaatal mu gën a yaatu jëm fa ndax mbir moom bu bu yokkuwul rek ah, dafa dafa war a yaatu daal dafa war dem ba yaatu yaatu ba ay daara yu bare bare bare sababoo ci loolu la ñuy ñaan te incha allah loolu daan am ay gone fi yoo fan yu néew danañ mokkal alxuraan fan yu néew si alxuraan loolu daal mooy liñ ci jotoon a jàpp ba ba nga ñuy laajaat leneen ñu wax la ci lañ ci xam incha allah. daara ji eh, gis nañu ni comme ni nga ko waxee ndongo yi bari nañ fi lool lu ëpp ci téeméeri ci ay ndongo eh, ndax eh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ndongo yi di leen tàggat ñu itam yow yaa leen dëkkal yaa leen dundal wala dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéeyu daara ji ci di ko financer gi ci aju. ah waaw xam naa bu nu ci kenn raxee de amagul solo waaw ah, amagul solo benn ndimbal bu wóor boo xam ne day ñëw ci daara ji boo xam ne danaan place sàngam lay jóge hmm, xam naa boo amee néew na lool li ci wér daal mooy lépp daal man maa ko jéngu bés bu ne daal dépasse bi añ reer ndékki loo gàtt gàtt du yées vingt cinq mille francs du ko am na nag benn mbokku taalube mbokkoom baax mu fi yónnee ndimbal barki démb ah meeru kii meeru meeru meeru Fass waaye lu mel moom néew na lu muy am <laughs> waaw yónnee fi ndimbal yoo xam ne bu ñëwee ndimbal lu fayda loo xam ne daara ji ay bis na lu am waaye nag loolu moom yàlla def na ko loo xam ne boobaag matagul ay waaw loolu lu néew a néew a mën naa sax daanaka sax mën naa loolu musta am loolu daal lan la ci mën a tontu. kon daal liy jóge ci tool yi daal moo yor daara ji. waaw waaw liy jóge ci tool yi daal moom mooy sunu ndëgër laay waaw lii xam ne moom mooy mu ne manqué ci tool yi mooy sunu ndëgër ak leneen loo xam ne yàlla moo ko andi waaw loo xam ne yàlla moo ko andi daara moom yàllaa ko yoral boppam. waaw daa yàllaa ko yor boobu loolu tax dañ ciy am daal gi xel bu baax mosu ñu tumuraanke ci leen nag waaw ah mosu ñu tumuraanke ci leen leen leen dara mosut a tar waaye lépp nag nu delloo ko ci ne rek ku nekkal yàlla yàlla nekkal la wala ku nekkal yàlla yàlla nàkkal la <laughs> ku nekkal yàlla yàlla nàkkal la la wa hasbu waaw loolu loolu moom yaakaar naa ni moom lu am am solo la beneen bi tamit euh, gis nañu ne ñëw fii tamit léegi-léegi yoon bi xaw naa am jafe-jafe loolu tamit euh, lan nga ñu ci mën a euh, gindee wala itam loo ci ñaaxee autorité yi fi nekk ngir yoon wi. waa ñëw gi de moom xam naa bu bu nawet duggee daal ba ndox mi ubbeeku moom jafe-jafe bi day yéeme lool. bu dee noor bi moom liñ ci jànkonte mënoon koo tollale waaye nawet moom nawet moom dañuy am jafe-jafe lool lool lool lool miin naa miin naa nawet ma dem ba yàgg foo xam sama waxta day foose ma téléphoné waa dëkk bi ñu takk ay saret di ko génne ma fa loolu moom lu ma miina miina miin na kon loolu la muy tegtalee mooy waa dëkk bi am nañu laa biir Ah, bàyyi nañ ma xel yu bari ba génn nawet doxi sa soxla sa wata dugg foo xam ne wala ne fii mbooloo ko fii jëlee nga téléphone ci dëkk bi ñu takk seen saret ñëw loolu lu ma miina miina miina waaye dëgg dëgg jafe-jafe daal nawet lay doon wax dëgg yàlla waaye noor moom noor moom naa du mit waaye nawet moom dana yéeme lool macha allah jërëjëf. <laughs> ok euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal ak ci dalal bi nga xam ne dalal nga nu ko ak ci yaatal gi. waaw waaw fii moom seen kër la <laughs> moom seen kër la lu ñu leen fi defar rek yelloo ngeen ko waaw ndax kàddu yi ma jiitu am na lum ci leeral waaw moom seen kër la saala lépp ci yaatal rek waaw ndax wala njaay nee na wax day tungoom seede <laughs> wax day tungoom seede nit ki lépp lu mu wax bu ñu demee ba ci biir war xam war nañu ni lii lii mooy firnde bi waaw waaye waxi kese rek boo ñëwul amul seede du dëgër kon nag ñoo ngi leen sant di leen ñaanal di jërë ngeen jëf